تدبي كنار سيسلس صلي ربي صلوا على النبي أحمد صلي ربي صلوا على النبي أحمد صلي ربي جل جيونن يا نلمي صلي ربي صلوا على النبي أحمد صلي ربي صلوا على النبي أحمد nañu muñ mbay mi féeru tey duun faate salli rabbi sallu ala rabbi sallu ala nabi ahmad salli rabbi xaalifay e ku ko xuus lak wala nga wàññeeku e ku ko jàmbatul du xaste du gaaral lu ko way wax mu bàyyi la ki koonu salli rabbi sallu ala nabi may déggiwul jàmbatul du xaste du gaaral lu ko wax mu bàyyi la ki koonu mbay jéggiwul jàmbatul du xaste du gaaral lu ko waay waa mu bàyyi la ki ko kon yàlla yonent ak Cheikh ak Maodo la jiital ñoo ne mbay si demal si yàlla tu woolu salli rabbi sallu ala nabi mbay yàlla yonent ak Cheikh ak Maodo la jiital ñoo ne mbay si dox kon Shamsu diine sa tur bi Maodo demee tey raxuloo diine xalifa yaa te woonu salli rabbi sallu ala nabi mam boy na ko yàlla yokkal leer yam amin amin ni mu baagal naa ba ñu màggat amiin amiin amiin dëgëral sëy ni cër nu ku tasoo dal ba ñu jooy góor sa dem na góor du ko faate salli rabbi sallu ala nabi yaa xalifa yaa xalifa موي يا خليفة يا خليفة تجاه من بيسي يا خليفة من مولوسي من يمالك للا يلا مي كوكو يلا مي دوخا ma ci nit ci ndox ay ni nga safe njaboot ge ni nga mel na ci ndox ma booy ni nga mel Amérique njaboot yee raw na suukar seey ci ndox du ma laaj ne xam naa lépp a sori doo xaar yaa xalifa yaa xalifa Tijaan sang bi yaa xalifa yaa xalifa Tijaan mar mi kenn te jaalimul ci mu daan góor gi kenn te jaalewul sunu googu mooy ababa doomu Maodo doomu Cheikh sunu kër googu googu mooy ababa ka ca bardaq tey wax ak waa googu mooy ababa ak i doog ami dañ dañ gëna googu mooy ababa nga la way doomu soxna ye bu ñu sàggan ci Babacar Si bu nu sàggan ci Babacar waaw ana ñi bëgg sëñ Babacar Si bu nu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay nanu way la te toppi ko mbay ba mu jiitu ñewul si ñun mbay la ko jiitu ñewul si ñun mbay dafa ànd ak maayam yu day mbay dafa ànd ak maayam yu day mbay si bu jiitu ñu topp ca ñun bu ñu jàppee ñun bu ñu jéema wal nañu ana mbay boo ko woowee mu wuy si la saase boo ko woowee mu wuy léegi léegi la boo ko woowee mu wuy si la bay boo ko woowee mu wuy si la bay boo ko woowee mu wuy si la bay boo ko woowee mu wuy si la bay boo ko woowee mu wuy si la bay ana mbay boo ko woowee mu wuy si la bay xalifa waa baytu wilaayati ana mbay waa baytu wilaayati ana mbay waa baytu wilaayati ana ñoom ñoo la rangal xilaafa cheikh ana ñoom ñoo la rangal xilaafa cheikh mbay di rangal xilaafam ya rangal xilaafam ya tàngal xilaafa xalifa nan la bàkkul ci diine ji xalifa nan la bàkkul ci diine ji xalifa nan la bàkkul ci diine ji xalifa nan la bàkkul ci diine ji man yéen a ngi liggéeyal man yéen a ngi liggéeyal man yéen a ngi liggéeyal man yéen a ngi liggéeyal man yéen a ngi liggéeyal dama ne kuy liggéeyal dama ne booy faatu dangay nelaw xandoor ya wàññi aljana dafay nelaw xandoor aca loxo ñu màggal Ababacar aca loxo ñu mag a Babacar aca loxo ñu mag Seydi Babacar aca loxo ñu mag Seydi Babacar aca loxo ñu mag Seydi Babacar aca loxo tey bu ñu sàggan ci baaba gaañ yi bu ñu sàggan ci baaba loxo yi bu ñu sàggan ci baaba gaañ yi bu ñu sàggan ci baaba loxo yi bu ñu sàggan ci baaba gaañ yi bu ñu sàggan ci baaba tey nit yàlla akub sëriñ daa bokkul sa fedda tey nit yàlla akub sëriñ daa bokkul sa fedda tey bu mu xëy rek di soppe may mooy pendal mu gën tu may moo yor wàññi say di may est-ce que dina jeex gaañ bu ñu sàggan ci baaba tey bu ñu sàggan ci baaba gaañ yi bu ñu sàggan ci baaba tey bu ñu sàggan ci baaba gaañ yi bu ñu sàggan ci baaba kon ana soppe yi Seydi Mbaye def leen ni loxoy jagaw ana soppay Seydi Mbaye def leen ni loxoy jagaw ana soppay Seydi Mbaye def leen ni loxoy jagaw ku ci def ni ca aljana ngay toog moom mu lay bégal eh, bu ñu saagan ci baaba bu ñu saagan ci baaba tey bu ñu saagan ci baaba gaañi bu ñu saagan ci baaba wa inna ni qad kuntu min ahli ndari wa maskani fi ala daari andari waqaftu ala babil khalifati aqtadi min ala'i rabba sa'a qajud ya fa in lam yakun babil khalifati ismatan لنفسي فما معنى رضا بوجودها وجدتك شخصا لا يمن من الندى إذا دنت الأشجار يوما بوجودها من سرين منصور برم داري من فلوس بي تانا للمفاس عيس جرى من لا ذوي الأولياء يسفر بمن هاو من برم داري من ينجي دي سبي سرين بابكر بغوكو am ngeen chance maa ngi leen di ndokkale ndax am ngeen sëriñ boo xamante ni da leen di wommat di leen won yoon ba dugal leen aljana busra lakum xayra qawmin niltumo wazaran yahdil murida ila jannatin mawlaahu ñu ne borom daara ji mu ne cheikhun hada waxtada bi adiyi zumarun min gaysu ma tabasum min nuuri fatwaaw ñu ne borom daara ji mu ne ma ngay doxal cota caaxam ma rango garaat ya saanal xilafata bal naala wirasata bal daawal dalalata amman kaana yafshaaw kafu samaati kanzil idayati برية من مرضات مولاه شاف الشمائل هاوي الفضائل هن من منايل بل بل تاب مرآه ñu ne borom daara ji mu ne daa toog ca saalam ba ñëpp wuy si ko te woowul kenn taalal bilaada waa Kajoor waa Njaamur waa Fuuta waa Zolof Saalum Bawol waa Gabon tasalulu xiyaaw ñu ne borom daara ji mu ne laa siyama siyama ndakaaru xayru xuraa gën gi ñu ne borom daara ji mu ne waay waaye fàttewuma waa yëmbal fàttewuma waa malika fàttewuma waa bon fàttewuma waa parcelle fàttewuma banlieue moo tax ma ne la siyama siyama ndakaaru xayro xura kazaka banlieue hab na li maq naaw ñu ne borom daara ji mu ne waa jàngi mooy leen ci moom su ngeen ci mooy aljana ngeen jëm bu ñu sàggan ci baaba yàlla bu ñu sàggan ci baaba kii de ku ñu sàggan ñu dem bala bu ñu sàggan ci baaba nanu woyloo te toppi Mbay